jakes production tena xoyta jom cosaan fo aada a mbana ref ka mama refit ka le 28 janvier 2024 a ref ka mama refit ka no terrain galgui na xaar yalla xa tegano pir ka a tegana den 4 millions pour pir ka somme trois catégories manam raw gadu poids léger poids lourd cey jakes animation na kima ka mbayang lum no mbak na momongom drapeau pap sagna mbay ministre des pêches et de l'économie maritime le 28 janvier 2024 na terrain gal gi na production de 4 millions animation mbayang lum momongom